jërëjëf Abdou Top euh, tey nag ñu am fi koo xam ni euh, ci nappaat musical ñu koy dalal te yàgg nañ koo dalal ci li nga xam ne rek moo di suñu plateau mu di El Hadj Mamour Mbaye bat géwél Thiès ndax ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall kenn nit ñi naatam ne woon ni tey lay dugg fi nga xam ne rek moom moo di Thiès te moo ko war a dalal Mbaye. Ah, euh, jërëjëf Soukey ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la ñaanal jàmm Mbaye dafa lu baax te ay bi ci plateau Soukey. waay saa ngi lay nuyu papa baa ngi lay fay bàyyi daal Omar bu nu xataab nu ngi lay nuyu <laughs> waaw waaw macha allah man damaa defoon maa ngi France 24 <laughs> waaye ginnaaw gi. Mhm. ci leen ma wax ne ma ah déet yaa ngi wal fa jëri. Mhm. waaye war France 24 laa yaakaar defal ne alors Didi. mi mhm. ngi lay nuyu. papa na nga ko ñaanal yàlla may leen ñoom ñaar borom kër. yi macha allah borom kër bu am jom bu dul daw ak suñu xaalis. <laughs> ah hmm. waxal ñu ah. dégg nga. la xam dégg nga waaw jërëjëf Mbaye Mbaye ku bëgg sa baay nga. loolu moom am na moom bëgg sa baay nga yéene ko jàmm. doy na sëkk yéene ko doy na. yéene sa bëgg sa baay yéene doy na li nga nekk rek baax na baax na. baax na kon la Fatou nga gis ah. la xew la xew baax na. waaye laa si ma ne foo ne nooy naa. jërëjëf waay waaw euh, El Hadj Mamou. waaw fa dañ la dañ la déggoon fan yële. Mhm. dañ la fi euh, dañ la fi invité woon. ma juum. nga ju ma juum ca wax ja ma juum ca wax ja ne woon. waaw. Euh, bul fàttali laajal rek président Macky du ñëw kii. waaw tey nag ñu jël li nga xam ne léegi moom moo di vingt millions teg ko ci say loxo. Mhm. nga war a dalal ki nga xam ne moom moo di président Macky. léegi nan nga koy daralee yow mi nga xam ne moo di en tant que bat géwél Thiès. Mm. nekk Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar su koy. Mm-hmm. sonko boobu nu fontoo. sonko <laughs> sonko ci boppam laa bëgg a yemale. waaw na xam boppam. Mm-hmm. te président bokkut ak moom. dëgg la sonko ci boppam. laay attaqué. Ah, sonko waaw. parce que li ma Macky defal bu ma dalul ci kaw sonko. waaw du yëg ni. defal yëg naa ko. ah tey moom waaw. kon ci Sonko lay dal. ñëwal dalal bu baax lool su koy. gis nga président Macky Sall. <laughs> daa yaru ànd ak teey. Mm-hmm. xam ni muy doxalee ak mag. Mm-hmm. tey xam ni nga xam noonu lay doxalee fii. su koy. mbaay. ah danaa ko tëggal de. lay danaa ko tëggal lay lay mbay daane doo sonko doo sonko doo sonko yowaay sonko miy wër di wëlëx wëlëx eh Macky doo sonko yowaay doo sonko fi def li nu gis xam nga ne yow doo sonko yowaay doo sonko waaw mbay doo sonko bu bees la dëgg la boo xam ne cees la lañ ko war a tëggee mhm. ko kenn laal droit d'auteur mhm. waaw ah, clap your hand son excellence everybody everybody son excellence is coming clap your hand son excellence is coming everybody son excellence. Eh, eh, boobu moo ko moom. ma eh, tëgg démb gi tëgg démb la nga war a indi. ma ne tëgg déglu ma. dangay ànd ak jamono bi da nga koy mixé. dëgg la bu tey. boole ko ah. doo Macky. Mhm. Sonko Sonko laa wax ci boppam. mu xam dama naan ko Macky doo Sonko yow. waaw ah. eh tontu. doo Sonko doo Sonko bu ko doo Sonko ay doo Sonko ay tontu. doo Sonko foofu laa foofu nga koy teg su dee eh, xol sedd na eh, léegi xam nga waaw eh, waa fi ma fi nga xam ni moom moo di bat géwél Thiès si bari nan yow yow yaay chef bi mm-hmm. mm-hmm. waaw maay nga mm-hmm. géwél géwélu sax waaye seen njëriñ des na seen njëriñ des na bàyyi ñoom tam seen yaay géwél bi ñoom seen li muy def rab la gën a jege seen géwélam des na seen seen géwél xam nga sama papa Aly Nguer yéen a bokk ndey ak baay. waaw waaye des na. Ah. <laughs> léegi yow xaalis bi noo ko def. macha allah xanaa rek xam nga président bi ma koy jox ba laataan ma yëg kër ga dafa am lu wadd. am <laughs> na gisuñu ko nee na bes. waa Ceskaay benn dëkk ñaari gaar. waaw El Hadj Mamoun Mbaye géwél Kees. mi ngi nii. waaw président day ñëw tey. waaw ok. allah waaye nag xam nga su koy. Mhm. xaalis kenn moo tax naan kenn du ko tënk ci kër. ak kenn du ko téye. ndax dana ci kër ga. dégg nga kër ga laa ko teg gone yi. kii mbaay. <laughs> kan waa mbaay nekk bu ma piis. ma ne ah dee ma nekkul ko woon jëkkëram gis naa ko mu sañse ca xaalis ba la. bu <laughs> sañse Boubacar ca xaalis ba la. ana ngay ji ca xaalis ba la. Ah. ma ne ma ne ma waaw pour organisation lan waxoon waaye matul. géwél gi daal bi. lay géwél Thiès. waaw may ma posé la benn li sa papa ji xamal ah. ni ngay laajee bàyyi su koy ngay waxal. bàyyi su kay kenn umpale jamono ji ñu laam-laamee que yéen yéen ngi euh, nguur gi ñooy lekk xaalisu askan wi tey ñu yëkkati vingt millions jox la ko pour benn cérémonie kese ah. imagine toi bu la joxee vingt millions ah. dem beneen dëkk joxe vingt millions ah. région yëpp mu dem fa joxe vingt millions bu ñuy lim tey ci ñu lekk xaalisu askan wi bu ñu la ci boolee of na mel ni kii liggéey ci état liggéey la l'art n'a pas de prix sama galan ngir xooj ko xooj galan gi rek cinq millions la ah balaa ngay tëggi. def la def la <laughs> mais xooj galañ. mais mais <laughs> yow lañ jox vingt millions pour nga def sélection bi. waaw mais bëri géwél yi léegi géw léegi géwéloo mbaayoo la ki sam. déedéet man damay tëgg juróomi nënd. jarul ñeneen ñi. juróomi nënd euh, bu ne dina fayam. man cóol rek ngir génn ko dag ma daan jox fa. tey gi ma wax. te te géwaloo te géw eh, te te géwaloo moom. mbaayo mbaayoo. géwaloo. mbaayoo mbaayoo ma ne. géwaloo ñangoo tamit kenn. géwaloo ñangoo amut. géwaloo mbaayoo. mbaayoo. kon yow léegi vingt. ñuy géwal mbaayoo et pourtant da nga fee waxoon ne Macky dugg biir ci SD. xaalis mën na mu ah. suka ku koy teree du. xaalis mën na ma kay borom sonko ma ma kay borom Thiès di. ma kay borom sonko mooy borom mooy borom Thiès sonko làq na ci sama lammiñ bi ma. <laughs> waay waay sonko. <laughs> ma kay du sonko. yow yaa mën a dëkk ci dëkk bi du sonko. yow yaa mën a dëkk ci dëkk bi Sonko te tey nag dégg naa gouvernance day fanante gouverneur sa xarit te maa ngi xamal gouverneur ku mu neex ku neex dugg ah, yow ku mu neex dugg ku mu neex génn déedéet gouverneur ci boppam am na loo xamante ne bi wax na ma ko macha allah sama ki fa la war a fanaan waaw macha allah nee naa ko nag euh, bu ñëwee rek danañ seere sécurité bi xale yi sama doom yi <laughs> ba bàkku bàkku Thiès la boobu ah bàkku Thiès Senghor amoon na bësam. doo sonko. doo sonko doo sonko. Ah, Macky doo sonko. yaa fi def li ne fàng muy wër di wax. doo sonko wallaahi. eh yaa fi def li ne fàng muy wër di wax. doo sonko ah, macha allah du ko tontu. waaw du ko tontu. lii nag ku ko sàcc di nga wax ak ma da nga doo sonko bii. ku ko sàcc di nga wax ak man. jërëjëf Mbaye yaa fi def lu ne fàng muy wër di coow. doo sonko yee eh, sa sañ sa nag naa rafet tey eh, Macky doo sonko yaa fi def lu ne fàng muy wër di coow. doo sonko jërëjëf Mbaye daane mu ne ko El Hadj Mamour Mbaye bat géwél Thiès ñu koy ñaanal fan nu gudd wànd ak wér.